boo ubbee téere bu ñuy wax euh, ifhaamul munkiril jaani kooku Cheikh Hadj Malick Sy radiyallahu anhu moo ko bind ci mujj bind la am na ca chapitre bu mu tuddee aba yi fi diini aba yi fi diini xam nga application lii la su ma bàyyi ci diini ñoom lay wax fii fulaan wa minhum fulaan wa min da nga ci fekk mu ne wa minhum alxaaji Abdullahi Niass xam nga waxi mbedd ak waxi yëngal bokkut ak aalim rabbaani buy bind téere di wax bismillah yi di bind loo xam ne moom ci kanam yàlla la koy gaaral ëllëg te mbooleem nit yàlla yi faalewuñ kuñ jëriñoo ku mun di doon fu mun di doon dinañ ko wax moo tax mu ne abaayi fi diini suma bàyyi ci diine wa minhum alhaaji abdullahi ñees ba wax ci daan